Mais eh, nous sommes, nous sommes évidemment ici dans le cadre bien naturel du Grand Magal de Touba. Eh, sommes là depuis le début de l'après-midi nous avons entamé les visites autour d'un certain nombre de foyers religieux. Nous avons pu avoir été reçus par eh, mon guide, mon ami, mon conseiller, Seigne Fallou Chouaïbou. qui nous a accueillis et qui nous a bien restaurés pour le déjeuner. Nous avons ensuite rendu compte à notre visite à notre hôte du jour, Seigne Amadou Mokhtar, qui est notre hôte pour ce présent Magal. Et de là-bas, nous sommes venus directement ici nous avons eu la chance de célébrer la prière qui est derrière euh, le Khalif général des Mourides, Seigne Mountakha Mbacké. Après la prière, on a eu à rencontrer brièvement et à retirer ses prières. C'est tout naturellement qu'on a euh, pour venir rencontrer Seigneur Bass qui est la voix le parole de, la Tariqa. Et donc, il nous a On a longuement échangé. Et il nous a effectivement gratifié de ses prières. Donc c'est ça. Monsieur le Président, vous revenez de Ziguinchor dans le cadre d'une organisation qui est d'une autre attends, attends, les gens ont des questions. Laissez-les poser. Voilà. Je, je, ne répondrai à aucune question politique parce que ma, ma, ma ligne c'est que les événements religieux, je ne me prononce pas sur les événements religieux. Ah voilà. donc euh, ñu ngi gërëm euh, di sant yàlla bu baax euh, bés bi di Cheikhul Khadim Serigne Touba nga xam ne tey moom la ñuy àndal màggal yàlla ci lim ko defal di. ñaanal yàlla ki nga xam ne tey moo fi Serigne Touba sëñ Mountakha Mbacké di ñaan yàlla mu yàgg fi lool ànd ak wér te yàlla may ko li nga xam ne mooy ay nalam di projet am yàlla may ko mu yeggale ko ci jàmm suñu teewaayu fay fii Touba nag euh, teewaayu jullit gu ñëw ci activité bu mag bii la di màggalu Touba niñ ko defee ren nag dañ ne dañuy ñëw. lépp li nga xam ne fii suñuy wëllëre la ci biir dëkk bi xaju si sax waaye nag ñu am luñ ci tànn rek fexe ba ziar leen moo tax yegg si nañ fii gannaaw bi ñu jógee ndakaaru egsi si fii booru 4 heures jaar nañu ci sëñ Fallou Chouaï bu nga xam ne sama sëriñ la sama xarit la sama conseiller la mu dalal ñu bernde ñu ñaanal ñu ñu jóge foofu dem ziar sëñ Amadou Mokhtar. nga xam ne moo ñu dalal ci màggal gi eh, bañ fa jógee it lañu ñëw yàlla may ñu ñu fekke géef yi julli ko ci gannaaw eh, sëñ Muntaxa Mbàkke gannaaw julli gi mu ñaanal ñu waaye it recevoir ñu ci lu gàtt eh, ñu nuyoonteeg moom saafonteeg moom mu defal ñu ay ñaan kon yoon la woon bu ñu génnee foofu nag ñu wéyalee suñu tànk ba fii fekk fii ki nga xam ne moom la tarixa bi dénk kàddoom muy sëñ Bass Abdoul Khadr moom it mu dalal ñu waxtaan ak ñun euh, waxtaan gu xóot sax wax waxtaan bu philosophique ba pare euh, ñaanal ñu yewi ñu ñu fas yéene nag continuer ziar yi ndax am na yeneen kilifa yoo xam ne moom lañu ñu war a dem seeti nii moo tax taxawaay bi du mën a gudd ndax dañuy bañ balaa ñuy yegg yenn kilifa yi fatu kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal sénégalais yëpp képp kuy ci tànkam pour ñëw ci màggal yàlla na la yàlla indi sàcc si jàmm nga fekk si waa Touba si jàmm màggal ci jàmm delluwaat fekk say mbokk si jàmm fa nga leen bàyyi jërëjëf